nuy naa ñëpp fi laay tàmbali yéen ci sunu revue de presse teel sa kaas kafe nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox la li xew ci rimas kono sunu gaal gi ab diil de bu demee ba jur jee ña teg diil ba laal ko war na noo xoolaat seen bopp le réveil yëgle kaay naan diilub Karim ak Macky Sall fait déjà mort xoolal ma lii ci rimas kono sunu gaal gi démb kay ci juróom-ñetti fani weeru février wi le neuf bi le kay ñu bare bari ci rimas kono sunu gaal démb génn nañu wàcc ci le enquête yëgle kan naan vendredi de heure dëgg lees mi naan njiitub réew mi président Macky rapport bi ànduñu ci le quotidien yëgle kay ni ma àjjumay deret dëgg lees ne meeku démb mali vendredi de sang dëgg la kay force de l'ordre yi fu si ne a ay journaliste yoo xamante ne dañ leen a ci li nga xamante ni moo di seenub a bi mujj faatu ndax ay blessures yu metti loolu yëgle kaay gi ne ca ma ñaari bañ naa gu mat sëkk kay lees nemmeeku démb ci xale yi ci réew maskanu sunu gaal way fippu yëpp takk taxawal nee li lu bëgg dees koy am de eh, eh démb kay metti woon la def lool tàngoon jëri ca ndakaaru njaay jal jóob ca Thiès ak Saint-Louis Mbàkke ba Ziguinchor fépp a tàkk wal fajri yëgle kaay nee seetal ma lii Vox Populi yëgle kaay ni ma moom kay élection yi nu lànk ni par force dees koy toxal bu le moo jur jóye ji ci réew maskanu sunu gaal moo taal réew mi fi ne ay waay sunu réew mi taanooti na tàbbeeti na ci violence akkan ñi ne ci ku jëg politique li ñu bëgg mooy waxi njiitu réew président Macky Sall li la tàbbi géej démb kay yëgle kaay gi neema vox populi wax de Dakar Njaay jal Joob Cees Kaolack Ziguinchor Mbàkke laa la wax ay mbeddam saxaar ak xeetu lacrymogène la fees tell laa wax ndax manifestation yi ay manifestant ci mbedd mi ànd ak force de l'ordre yi di bir ay mani vox populi yëgle kaay neema lu ëpp juróom fukki organisation ñoo taxaw de mu fees dell ak jeune daal di yëkkati seen kàddu ne sàll ngaari vote day am l'observateur yëgle ni ne ma lii raam ci ñàkk bi la jëm de temps sans mauvais la wax lii xeeñ neexul kenn ci réew mi askanu sunu gaa yëgle kaay gi di l'observateur xuus na bu baax dugg ak ñun ci faatuk eti jang di wuyu ci turu Alpha Yoro Tunkara l'observateur yëmu fa mag ma naan démb kay laa la wax metti la réew mi def ay wata yu nu taal ay commerçant yu di dir dire seenum rek sauvé ko ci sawara si li nga xamante ni ñoo ngi koo taal muy bërbëri ci réew mi ay banque yu nu vandaliser ay nit yu nu jàpp laa la wax li nga xam ni ko ni expliqué ma ko du la ko mën a expliqué l'inexplicable violence bi ñu nemmeeku ci vey taskatu xibaar yi journaliste yi ni jàpp di mën ma nekk sonal saa su yu nu mel amee ci jooji la jamono mbir mi di am laa la wax ca Vélingara laa lu yéeme te doy waar am na fa ab benn xale bu jigéen boo xamante ni treize ans la am waaye du lii duñ ci wax ñu daal di ko violé ni brutaliser ko faat ko abandonné nag ab jeune bu am 17 ans la seetal ma lii lii kay kenn daa xamul lu muy niru laas yëgle ni ma Dakaaru Njaay Jal Jóob toxal gi toxal élection yi tax na affrontement yi yokkaat fa ni tulleeg màlle waawal fajiri jóg nag takk taxawal wax yëkkati taxaw temm ci li nga xamante ne mooy li nu bëgg laas yëgle kaay ni ma njiit lay seex ñas dem na sax ba dina déloger génn njiitu réew président Macky Sall ci palais bi aman de jommi naa bu demee ba waa UE ci di teg pression bu fatt tara julli si woon de ñëw ñu ni gazé ay gaz lacrymogène taskatu xibaar yi nu sonal nag seetal ma lii métti na lool ba àgg ci lool Mor Amar ma nga xamante ni moo ne ci enquête ak Absa Anne mu Seneweb dañ leen a sonal violente leen ab étudiant ñu daal di koo faat fa nga xamante ni moo di ca Saint-Louis yëglekaay gi ni ma ba tey leen fu yëglekaay yi wax de koo xamante ni légende la ndaanaan la ci làmb ma ngay wóo ci maam góor gi Njaay moom ci jëmi boppam mujj na faatu yëglekaay gi la ko faat bokk na ca grenade lacrymogène yamu nooy ndax des koo sànni ci këram mu faatu des jours yëgle kaay naan réew na fi toll nii tembe foo xool saxaar ngay gis way fipp yi dara taxul leen a wàcc ci mbedd mi lu dul reportu élection yi lée Touba gan doon wax naan politikul politikul lu doon am ci kuy manifester ak yu ni mel démb saf-sàpp la def ci manifestation yi yëgle kaay gi ni ma moom kay dégâts yu bare bare bari lees nemmeeku ca Touba laa wax ku ne génn nañ di dëggal naan xeex bi ku naan bokkuma ci yaa ci jiitu RFM Mbàkke yëgle kaay gi ne ñu yàq te yaxet laa wax sànni ca ay xeer tojate xale yi ni duñu bàyyi dara de mboole seen osan yi ñu visé manifestation yi ñu visé daal di attaqué le journal yëgle kaay naan xanaa xamoon ni waa États-Unis ci jëmi boppam fi toll ni tembe teg nañ pression bu fatt trac sur njiitum président Macky Sall Cheikh Niass yëkkati ay kàddoom naan dinaa yëkkati nag njiitum réew président Macky Sall dinaa ko génnee ba noppi nag daal doon président de la république tëtëtët euh, benn journaliste bi seen web ñu brutalisé ba noppi nag daal ko hospitalisé te hôpital ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar goy taal Thiès info yëglekaay ni ma docteur Ndiaye di topp ci seeni trace lépp lu nu taal nu fay yor brouette ko mu peelam yëglekaay gi ne di tibb suuf di def ci sawara si di fay ministre bi ne du bàyyi mukk gone yi taal réew njiitum réew mi sàll ngaari président Macky Sall ne kaay leen ñu waxtaan woote aw jolo source a yëglekaay ni ma on a touché le fond ma ni dañoo sës rëkk laa wax danaa ma ndax xam nga ni carte presse nationale yi nga xamante ni la journaliste yor ak gilet yi ñuy a leen mën a gis laa wax ndax dañuy kaggulee ngir di leen topp du mën a ne ci joojale jamono source ay yëgle ka ay wax de ma nga naan banque yi gaa yi jaxase di taal ak a yàqate pune yi ñu taal wate bu nu fekk nga gaare ñu taal démb day boo jógee Ziguinchor ba waxu Saint-Louis jaar Kolda ak Mbàkke Louga ñan fa jàpp ci ay manifestant laa wax nitu léeg màlle riir mi màccum gerte ay waay yow étudiant bi faatu na moom Alpha Tunkara mi nga xamante ni mi ngi inscrit woon ci licence 3 ko faat ñi ci des nii crise cardiaque la ci jamono ji nga xamante ne étudiant yaa ngi xeex ak takk der yi yëgle gi ne mën nañ dem ca Pikine coordinateur de la coalition Diomaye président ba Daouda Gueye des koo jàpp moom ak kenn ci ay lieutenant yëgle gi ne leen ca commissariat ba Les Échos yëgle kaay ne ma mbir mi de dem na sax ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy footballeur yi équipe nationale bi yi ñenn ci ay joueur wax ci ñaan jàmm ci réew mi Kalidou Koulibaly Papa Gueye Pathé Ciss ñoom ñëpp a ngi naqarloo ko ñaawlu situation bi nga xamante bi yëgle kaay naa moo ndax jarati na ko rapport boo xamante ni mujj na nag daanaka sax nit daa faatu seetal ma lii ca kastoor yëgle kaay gi ne ma banque CBAO des ko saccagé yàqte ko ay oto ñu taal ñu daw seeti record mu ne ma ñëwal ma waxal la ci li nga xam ni mooy final bi fas yéene am maa nga ci weq jiital ga ci diggante Côte d'Ivoire ak Nigéria ana kan mooy wuy ji réew askanu sunu gaal ndax ñoo ko mujj a jël kan 2023 final Nigéria Côte d'Ivoire législature bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàggeen jëf jërë ngeen asalaamaaleykum assemblée nationale bu Sénégal nag ci juróomi fan ci weeru février bi ñu ne dafa wote ginnaaw ay coow yu fa tar lool loi constitutionnelle numéro 4 2024 bi nga xam ne day ñëw indi ay coppite ci article 31 bu ndeyu charte réew mi wat boo xam ne nag mi ngi am ginnaaw gis président de la république nii la lee décret bi nga xam ne moom la jëloon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre ci atum ngir daal ñëpp ñi nga xam ne dañoo war a bokk ci élection yi yëgal leen ni danañu ko amal ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février ci at bi ñu ne ñaari jéego yooyu la nag di ñëw xajamal bu baax a baax suñu république ak it li ñu xamee Sénégal di démocratie boo xam ne law na fi bu baax a baax loolu di gis-gisu professeur Babacar Gueye professeur Abdelkader Boy professeur Alioune Badara Fall professeur Alioune Sall ak professeur Serigne Diop jaarale ko ci ab bataax bataaxal bu Sud Quotidien siiwal tey lee professeur yooyu di xamle ne nag wotug bu le loi di ñëw jalgati bu baax a baax ndeyu charte réew mii bii fësal ne jiitu réew mi ak assemblée nationale du kenn ci ñoom koo xam ne am nga boobule sañ-sañ moo tax it professeur yii ma lim sànq ñu ngi xamle ne conseil constitutionnel bu mbiri tëroo ni le jaarale ko ci article 29 ak 34 bu ndeyu charte réew mi ñoo war a wane yoon wi moo tax it Sud Quotidien di xamle ne professeur université yi lee leen rek la ñuy xaar ci conseil mooy mu atte yoon balaa ñu cee yegg nag jàpp leen ni démb ci àjjuma ji tàngoon na jër ci ndakaaru ndax askan wi ñoo wàccoon ci mbedd mi jàkkaarloo takk der yi ngir lu dàq bi ñu dàq jongante yi demb nag moo doon bës bu njëkk jëmale ci mobilisation bi nga xam ne moom la waa société civile ak ku jegi woote Sud Quotidien nii te Sodida Castor ak askan wi si boppam ñoo génn ci mbedd mi fipp lool du rek ci ndakaaru lañ nemmeeku woon li lée ca ndar géej it li fa nemmeeku woon benn l'étudiant bu université Gaston Berger bu ndar géej ñàkk dafa bakkanam ginnaaw jàmmaarloo ji tar diggante étudiants yi ak takk der yi ndéem si yàlla si nga xam ne nag dafa am luy tolloog ñaar fukki at xibaar yi daal dañoo wane ne ab bal la ñu ko sox te bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi nga xam ne moom la suñu naataangoo Yves Tendeng jot foofule mi ngi ñàkk bakkanam ni ñu koy rawale ci urgence centre hospitalier régional bu yi nga xam ne moom lañ doon amal démb ci Sénégal ak le quotidien ñu ne démb ajjuma ji xët-xët yi fasoon na ci lool ak takk der yi nga xam ne dal nañu bu baax a baax ci ñi nga xam ne ñoo génnoon ci mbedd yi xeer yi ak gaz lacrymogène démb taroon nañu lool ci réew mi bu ñu sukkandikoo ci le waa laas di ko feelu ne jàmmarloo yi ñu doon nemmeeku ci ndakaaru gisaan nañ ko fa démb te ñu ëpp ci ñi nga xam ne ñoo wàccoon ci mbedd ñi nag ndaw ñi la ñu loolu yëpp nag mi ngi am bu ñu sukkandikoo le soleil ginnaaw gi nga xam ne takk der yi dañoo tere société civile ak kujje gi bi nga xam ne dañoo bëggoon manifester foofu la ci place la nation moo tax it ndaw yi tasaaroo ci mbeddu ndakaaru yi loolu yóbbee waa bés bi le jour ni saxaar si fasoon na démb lool ci ndakaaru ak yeneen diwaan yi ci Touba nag moom ay yàqu-yàqu yu taratar lañ fa nemmeeku RFM bu Mbàkke ñu sox ko ay xeer yu bëree bëri am na yét yenn Auchan yoo xam ne xale yi tegoon nañ leen gët ak it ay station d'essence yoo xam ne dal nañ seen kaw fipp bi ci boppam moo fasoon démb lool bu ñu sukkandikoo ci waa l'info ñuy xam le nii wéccoo xeer ak grenade lacrymogène fasoon na lool démb mu jox ci kàddu Thierno Alassane Sall mu ne ñoom dañoo ñëwoon julli ci ginnaaw ga ay gaz lacrymogène la ñu nokki bu baax a baax da koy ñaawlu fu ñaawlu yem te it am benn yoon ndaw yi nag waa la ñu dóor ci jamono joo xam ne nag seen liggéey rek lañ doon def waa police ñëw xajamal bu baax a baax sañ-sañu yooyu la taskatu xibaar bu ci mel ni Absa Anne bu Seneweb dañ ko teg loxo ci anam yu méttee métti finnaal ko lool ba mu mujjee xam ñu rawale ko ci këru docteur ginnaaw gi ñu ko teggee loxo moo amax suñ beneen naataangoo bu fare ci l'enquête moom it jot nañ kaa dóor matérielu équipe leeral lañ ñu yàq ñu des ak taskatu xibaar yi ndax démb dañoo dajaloo ci maison de la presse bi ñu duppee ndim si yàlla Babacar Touré ngir ministère communication bi jëlee ci loxo ci groupe Walfadjri ab licence am ci ñeenti fan ci weeru février bi ñu ne mu delloo ko ko ci ni mu gën a gaawee bu weesoo ñu delloo waa Walfadjri seen licence ñu fexe it ba sàmmonteeg sañ-sañu taskatu xibaar yi lu leen ñor la jàpp leen ni dañ doon amal ab toogaanu sikki mu ci buntu Walfadjri ngir ñaawlu lu la yëpp takk der yi ñoo ko mujjee tas sànni fa ay gaz lacrymogène mu métti lool it ñi nga xam ne ñoo fari ci ku jégi ak société civile lool secretaire général bu ONU muy Antonio Guterres fi ñu yeggee boobule xibaar mooy waa Dakar Times ñu dellu si si kàddu yi nga xam ne ku yore kàddu secrétaire général bu ONU moom la yëkkati démb ci jàkkaarloo mag taskatu xibaar yi keneen koo xam ne it def na ab déclaration ci kanamu taskatu xibaar yi mooy Seydina Issa Thiaw Laye moom mi nga xam ne moo ne ci bopp organisation woote Seydina Limamou Laye bi nga xam ne moom la ñuy amal ci téeméer ak ñeent fukk ak ñeenteel bi ci jeexital ay bés bi ñu ne Seydina Issa Thiaw Laye di xamle ne dañoo war a teg ci suuf suñu féewaloo jiital intérêt réew mi ginnaaw gi ñu amalee élection ngir natt doole syndicat yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci Sénégal premier ministre Amadou Ba daje na ak ñoom démb tey daal ab déggoo lañ fa gis le soleil di dellu si ci juróomi ndenkaan yi nga xam ne moom la premier ministre yëkkati ci boobu leen ndaje ñu jàll ci beneen ndaje bu jëm ci jeex muy coupe d'Afrique des bi ñuy amal ci Côte d'Ivoire ndax final bi ëllëg am ci diggante nigeria ak Côte d'Ivoire sànni wa ilaa fayee ko rek lay doon wala firndeel nañoo ñoo mën ñayu Côte d'Ivoire yi mën nañ diiranteek mbagg bu baax a baax ceeli yu Nigéria yi waa Côte d'Ivoire dañoo fas yéene dëkku waa nigeria danañ def seen kéem kàttan ngir wutu Sénégal ci bopp footballu l'Afrique jàppale ni tey ji nag xëccoo bi dana tar lool ci diggante RDC ak Afrique du Sud ñu nar a xëccoo ñetteelu place bi lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour, démarrons par le quotidien du groupe Sud Communication, Sud Quotidien, qui s'intéresse à la loi portant dérogation au dal leen ak jàmm jàmm amul demb ci réew mi tax mboolem yéen kaay yi nu xëyandool xëy di ñu ko xibaar muy l'observateur las les échos source a enquête le quotidien Walf Quotidien libération l'évidence ba ci direct news l'observateur ne na yu bari moo amoon demb ci réewum Sénégal askan wee génnoon ne àndunu ci élection présidentielle yi nu ràndal amul kenn ku leen jiite woon ñoo génnaloon seen bopp Dakar yeneeni région yu bari ñoo maase woon doon ñaxtu bari lool itam lu nu yàqate oto yu ñu taal commerce bi nërmeelu amit banque yu gaañi attaqué takk derrière teg ci loxo ñu bari journal Futurs Médias bi yokku ci ne doon fitnaal itam taskatu xibaar yi ca Saint-Louis di ndargee ci ab étudiant ñàkk fa bakkanam Alpha Yoro Tunkara la tudd susu aani démb réew mi ci boppam moo bari woon fu doon tàkk bés la journée dëgg la le Sénégal en daanaka région yépp doon ràndal moo metti lool askan wi taxoon ñu génni doon yebbi seenu naqar loola itam waral ba réew mi doon dund démb ajjumay fitna ju bari woon lool deret ndaw yi di ñaxtu takk der yi bëgg koo gàntal fitna dal di jëkk jaamarloo yi tàmbali bën cay fitnaal sax journaliste yi ca Saint-Louis itam ab étudiant ñàkk fa bakkanam enquête yéene kaay ne ci seeni xibaar étudiant ba faatu ca Saint-Louis bal lañ dóor ba procureur ubbi na cab enquête Walf Quotidien askan wee ne Dakar Thiès saint ñëpp doon boy vox populi ne lépp élection yi nu randal moo ko waral ndax askan wee génn taxaw ne du ci dal loole itam waraloon réew mi doon tàkk les économies li ci gën a moo di takk deri démb dañoo meloon ni ñu ciblé journalistes yi demoon sax ba boole leen ci ñin doon fitnaal ci lu a ñàkk ñoom journalistes yooye ak kuréel leen ëmb ne duñ ko seetaan te mbir mi dinañ ko jébaane ci àdduna wërngal këpp ndax lii nekkul dëgg te du yoon moom tàmbali na jur fitna ci réew mi ndax bakkan rot na ci surtout quotidien moo tax ba conseil constitutionnel ak juróom-ñaari sages ya fa nekk war nañoo wax fàttali ñëpp li yoon wax ci dogal bi yee fitna bugaan gay daani njiitul gëm sa bopp ci évidence ne booloo defub dànk rek mooy mën a tax a jaamaarloo ko Macky Sall ngir lii mu bëgg bañ a jàll ci grand place ñu fekkaat ko fa moom bugaan gay daani ni li mënta comprendre moo di ne naka la nit mën a nekke ci nguur gi diiru fukki at ñaar ànd ak ñoom ci lépp bés nga ñëw ni ci ku jéggi nga fare waa ku jéggi xajal la yaatal la ba noppi bëgg a xas xam ne diiru boobaak léegi moom moo ngi ci kujje gi bugaan ne nañ bàyyi seen caaxaan yi te booloo defub dànk ngir xeex li fi nekk njiitul gëm sa bopp yokk ca ne élection yi nu ràndal fawu mu ami njeexintal ci économie bi te itam nag fi nu jëm moo di ne lépp la nu nar a yokk libération ne seen dëkkaaw moo amoon démb ci réew mi askanu révolté wu di yebbi li leen naqari takk deri ni leen du ci dal jaamaarlooy jur fitna ba bakkan rot ca sànnaar lépp li ko waral di politique ak yi nu ràndal li quotidien doore ko ca tuumay waa PDS mën a am ngir candidature Karim Meïssa Wade bañ a jàll premier ministre ne coow li histoire dina ko leeral le soleil ne li leer te wóor daal moo di fitna amoon waaye takk derrière dékku nañ ko journal L'As ne ci dékku gu metti ndax réew mi ci boppam daanaka ñoo maase woon di ñaxtu askan wi ci boppam ñoo woote woon boroom woote bu rëy ba dëgg kay moo di Seydina Limaamu Laay Almahdi l'observateur ne téeméer ak ñeen fukk ak ñeenteelub appelub Seydina Limaamu bi Ngor Yoff Wakaam Jàmmalaay ak Kàmbareen foo ci woote laay la ni nekkit woote boo xam ne mel na ni démb le soleil national ne ci woote bi itam woote nañ ci jàmm ak dal ci réew mi ñu woote woon CAN 2023 ci football bi ñoo di waa Côte d'Ivoire ñoom ak waa Nigéria ñooy football final bi suba ci dimanche ji stade yéene ne revanche lay doon wala confirmation record mooy nar a wuutu Sénégal ci déndu Afrique ci bopp football bi lamb ji génn na àdduna sunu làmb sëgg sa ngéem di ñu ko tàggee ne gannaaw téeméer ak benn victoire mbër ma daanu na ba faw mam góor gi njaay faatu na ci coobarey sunu borom Les ko ne ca caaroy gaar benn borom charrette moo fa dammloo su nit ba mu ñàkk bakkanam ndax ñeenti téeméer